Sëriñ Saliou yaa tax ñu sos daayira ñëw jébal la ñu toog fi yow wax ñu xoolaa. mi kaar yi tàllal loxoom noonu dem tool ya ñaanal ah mini kaar borom bong na ñëpp ay bong. man de. dama na dañoo kontaan. ñëpp jot nañu ànd ak soxna Fatou Sidi ak mini kaar ak suñu loolu ñu liggéeyal Serigne Touba xel ko ren nag ndigal li ñu am sëñ juróom-ñeent fukki cin ak juróom-ñeent muy turi asmaawul husna def nañ at mu jot day gën a yokk tey ku ñëw fii ci asalam ko soxna Faati xam ni ñëpp ñëw na waaye Minicar sëñ Saliou la am sëñ Saliou la wóolu sëñ Saliou la doyloo moo tax ku ma woo ci liggéeyu sëñ Saliou kat dafay ànd ak yow ba mu neex yëpp yi nag moo ko siñoor loo ñoo ko sos te ay góor gi ñu baax a baax a baax kon waaye bu mariage mooy nawi seen tubaay yëpp rek nawi tubaay nawi seen tubaay yëpp at mu jot na ngeen def ci seen temps def ci seen doole ànd ak soxna Fatou ñu ni kaa ca kaw ca kanam ci këram fii ji asale mi defe ko ci moom waaye ku fi ñëw xam ni yëf yi yokku na yëf yi yokku na mi ngi ni doonu Baye Fallou sëñ Sidi rek jëm xel ko yàlla yàgg ci barke Xaadimu Rasuul yàlla yàgg. waaw non soxna Fatou yan kàddu ngay jigéen rek ci bis bi. xanaa di kontaan rek. di ànd ak mbégte ci seen teewaay. jërëjëf di xam ne am jot ni ñu ko yàgg a defee. di ñaan yàlla rek mooy ñu gudd fan ak gërëm fekkee. baax mu jot rek ñu ko moom. kon nag sëñ bi soxna saa nga noonu waaj. jëm rek ànd ak cortège bi jëm xel ko pour yóbbu xéewal foofu daal nekk dana nga fekk andi xéewal kon nag loolu rek la